waaw ñu de lii rêve la ci ñun gëmëwuñ ko parce que depuis ceeb alaaji Abdou di fi jumaa ji nekk ñuy toj ak di def lépp ñun fii leen dëkk vraiment suñ señoon tey yàlla di gën a def jàmm xalifa bi ubbi ko yàgg fee yàgg ak njabootam ak ñëpp boole ci képp jullit lii moom du tiijaan du murid di kenn ñëpp ci bokk lii mooy am ñëpp kon lii ndamu Tiwaawan la ndamu Sénégal la

si jullit yi rawatina ñun taalibe cheikh yi am nañu contentement bu rëy rëy rëy nag boo xamante ne xamuñu nan lañ koy exprimer ak fan lañ koy exprimer xanaa di ñaanal suñu xalifa bi rek sañ Mbaye Sy yàlla na ko yàlla may mu fekkee lépp. ndigalu waajuram ay kilifaam la eggale ndax euh, lii mébét la woon boo xam ni euh, képp kuy xalifa rek mébétoon nga ko kon bu ko eggalee rek sant yàlla la ak euh, di sant ay waajuram. di kontaan ci trop di ko ñaanal nag fa nu gudd ak wér ak xéewal سأوعي نصارى lii yaakaaroon nañ dinañ dund ba jóge fi te du musa yegg kon nag bu ñu toogee ba tey suñu xalifa bi defar ko ba mu yegg fii dañuy kontaan rek di sant yàlla bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla may ko wér ak wérle di ko ñaanal bépp taalibe bu ci dugal dërëmam yàlla na ko yàlla jàppale bu baax a baax a baax a baax di ñaan nag ñëpp ñu ci jàpp xalifa yee doomam yeeg xa sëñ yee ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla defal leen jàmm bu baax a baax. sant yàlla. السنت السيدي على شمالي سنت خلف بي في نيك نيو نيو في دك سيتيوان كونتان نان سي بوبا واو يوم شأنه جاهز Kontan trop si sunu jumaaji ji sunu feetal la parce que dañoo juri fekk jumaaji ji tëralu ni jagg nañ yalla fekk ko nañ kep ku gatt fan doxa fekkee bu dee ba al khalifa mbay mbé Mansour fanam tamé mu koy wér comme li si jumaa ji mu ngay ay rakam ak ay jabotam bi jumaa ji commencé bi légui dal nun mom duñ ci gis moy content rek ak content bu baaka baaka baak sante seigne sant sëñ Mbay si Mansour bu baak te ko ñaanal gudd fan ak wirak yal na ko yàlla may bi fekk ñu ubbit jumaa ji ci jàmm ak salaam bi jaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam jumaa ji moom rafet na trop jumaa ji moom rafetam moom foo ko ab moom weesu na ko moom rafet na trop trop waaw rafet na liggéey bi jaar na yoon te tamit gaaw na بماء عفوك li nga xam ne ni yëkkati nañ seen xaalis muy jullit du duma du lim muy jullit képp kuy jullit wala kudul jullit sax yëkkati xaalis def ko ci jumaa ji na nga jàpp ni defaloo ko kenn kudul suñu borom suñu borom mi am fay yal na la yàlla may fay ci barke nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. fii moom ku fi def ku ne sa xaalis moom ci bopp nga defal quoi parce que man dama fees jumaa ji parce que dama liggéey man en tant que ouvrier CDE nekk conducteur de grue di fi liggéey te sama alal di fi def ak sama ñàkk sama doole di fi def feete la quoi tamit fii lépp loo fi def rek suñu borom moo la koy fay. yàlla moom ku def ci ci jàkkam dara da am lu baax bu soobee yàlla ak yonent bi ndax yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na ku ba ku tabakal yàlla jàkk yàlla denal la tabakal sàtto ci ci àjjana jumaa ji di jumaaw tijaan di jumaaw murid di jumaaw laayen di jumaa kenn yàlla la kon donc ku ci def dërëm it na ci yàlla def rek ku ci mën a def def ko ci te yàlla tax képp ku fi dugal sa ñaq yàlla na ko suñu borom ful yàlla na ko yàlla barkeel si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. alal nu mu nekkee si xol ñu jël seen alal ay milliards ay millions ay mille francs di ci def képp ku si dugal sa dërëm ñi ngi ñaan yàlla yal na la ko yàlla fulal te barkeel ko la fa des di ñaan yàlla képp ku du fi dugal sa dërëm yal na yàlla def muy nekk loo xam ni yal na la ko yàlla fay ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xamni ñom lañu top ci seen ginnaaw muy Cheikh Ahmad Tidiane ak njabotam yal na leen ko fay ci darja yonent bi ومسكين ومنكسر محتاج من دون إنكار إني فقير ومسكين ومنكسر احتاج غيرك في تيسير أوطاري إني فقير ومسكين ومنكسر ما احتاج غيرك في تيسير أوطار إني فقير ومسكين ومنكسر